tey ñi ngi fi ci Flamboyant fukki fan ak ñatt ba ci fukki fan ak ñent ci wéru janvier bi ñu nekk ngir def leul bu am solo bo xamni ni jigen jigéen ñi lañ ko jagalel jigen ñi nak ñi yu joggé ci euh, mooy jigen ñi yëngatu ci napp cosaan ak aada ngi joggé ci Sénégal Mali Mauritanie Guinée alors Gambie ak Côte d'Ivoire dañoo daje fii tey ngir weccoo seeni xalaat weccoo ay ay xibaar yu aju ci nekkin ak taxawaayu jigéen. n'est-ce ci wàllu koom ak ci wàllu lu jëmale doomu aadama kanam ci seen réew li nga xam ni moom la ñu namm ci atelier bi mooy bu ñu fi jógee mën a taataan ay xibaar yu am solo yoo xam ne dina mën a tax ñu gën a yëkkati suñu yuuxu ngir nguur yi gën a xam ni jigéen ñi yëngatu ci napp cosaan ak aada ci wàllu napp dañoo am solo lool et que seen liggéey non seulement dafa am solo ci wàllu koom waaye ci wàllu lu jëmale doomu adama kanam rawati nag seen njariñ ci biir kër gi ci wàllu dépasse bi ci wàllu pajum xale yi ci wàllu wérgu yaram ak lu ñoom seen weg gi moom des na weg nañ leen waaye des na ndaxte gis nañu jigéen ñi boo seetee ni ko FAO di waxee téeméer boo jël genn wàll ga ak lu tegu wala genn wàll gi ay jigéen lañu te jigéen ñi boo leen seetee ci biir napp mi ñu ngi ci biir yëpp di ci liggéey waaye dëgg-dëgg gis nañ ni nañ leen war a jàppee des na lool. ak njuréef li nga xam ne moom la ñu séntu ci bi mooy am njuréefu plaidoyer bu am solo moom bu fi jógee danañ ko wax ci biir dëkk yi waaye danañ ko wax aussi même ci àdduna si ngir jigéen ñi ku ko xamul woon gën a xam ni am nañu solo ngir ko tëral yi ni nga xam ni moom la nguur yi def ci wàllu napp ak wàllu mbayum jën ñu gën cee dooleel gën cee sédd jigéen ñi. waa ndaje tey bii euh, am na solo lool ci ñun ndax li tax mu am solo euh, dama ne guléet ADEPA di ñu gunge ci genre xeetu atelier bu mel nii li tax mu am solo à chaque fois parce que nit boo xamul. gëdd jigéen yaakaar naa à chaque fois doo ko mën a jox di ko dajale pour mu mën di wax soxlaam ñu mën koy dégg donc damay profité ci occasion boobu tamit remercier ADEPA bu baax a baax. li tax mu am solo parce que atelier bi tey daf ñuy permettre ñun nga xamante ni euh, dëkk yi nga xam ne ñoo daje fii muy Côte d'Ivoire Mali Guinée Mauritanie Sénégal kenn ku ci nekk jafe-jafe yi ngay dund ci sa réew ñu waxtaan ki euh, séddoo jafe-jafe yooyu jéem a wut. piste de solution boo xamante tey yaakaar na nañ buñ fi jógee ak plaidoyer comme ADEPA e yàgg nañoo jàngal naka plaidoyer kon yaakaar naa ne buñ fi génnee tey ci atelier bi euh, war nañoo mën def message de plaidoyer fort yoo xamante ne tey fu ñu taxaw wax ko rek dinañu mën déglu pour que changement am ci suñu walu dundin. waaw jafe yi euh, wax naa ko sànq ci ñu dogale ken gisu fi jigéen jafe-jafe yi bokk na ci tamit euh, manam, ci wàllu jot koppar financement yi. dafa des jafe-jafe yi bokk na ci tamit aire de transformation yi am na dont que am na loo xamante ne suñu kilifa yi autorités yi def nañ ko mais ba tey des na muy wàllu aménagement aire de transformation yi ak tamit dote leen ay jumtukaay yoo xamante dafa méngoog suñu liggéey dafa des maanaam dafa des tamit ci wàllu boole ñu jox ñu suñu gëdd euh, ba nga xamante ne jigéen dina yëg boppam euh, ci dans le secteur de la pêche comme ni ñu associé yëpp li ñuy xaar mooy ñu gën ñu boole. ci fi ñuy dogale ñu fekkee ndax lépp comme ni ñu koy waxee rek tout ce qui se fait sans moi est contre moi.